coowal viol amati ci réew mi. Eh, kilifa gu mag. Mhm. gu ñu ràññee ci wàllu politique. Mhm. dëkk Fatick. Mhm. moom la mbindaanam bu 16 ans tuumaal ne dafa yegg ci kawam. dégg naa ko de. yaa ngi bëgg xam kan la. man xam bi mooy man bëgguma wax tur bi te su ma la waxee fi mu jaar ña fa jaar ñëpp. tuuma da di topp. xamoon ay poste responsabilité yu mag fii. dëkk Fatick. waaw. bi ku ñu xàmmee ci wàllu politique. waaw. yenn indication bi ma la waxee sant bi wala ma non. ba bàyyil euh. noonu xëy na gars yi dinañ ko creuser mais. xawoon na fee nekk kii sax. non non eh. waxuma eh, waxuma. sama xel man <laughs> gis am na waykat mu mbokkal sant ci réew mi. fii. bokkuñu dara nag ñoom ñaar bokkuñu dara mais ñoo bokk sant. wéykat yu dàq ci réew mi. fii. <laughs> rédaction. <laughs>